أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ni seetaan fii ci Tektal TV dikkaat nanu ci kàttanu buur bi subhaanahu wa taala ci seen juróom ñaareelu jataay ci li nga xamante ne mooy njariñu qul huwallahu ahad wala dikkaat nañu ci seen juróom-ñetteelu jataay ci njariñu qul huwallahu ahad ne fan yee ci ginnaaw dikkoot nañu ak yéen ci seen juróom-ñaareelu jataay kon tey mooy juróom-ñetteelu jataay ci njariñu qul huwallahu ahad allahu samad lam yalit walam yulat walam yakun lahu kufaan ahad mbokk yi comme niñ leen ko waxe woon qul huwa allahu ahad saar woowu gàtt na ñeenti aaya la waaye dafa bari njëriñ ku nu ne dafa bari njariñ soo delloo ba xool la muy wax ak la ko tax a jóg nga xam ne saar wi bari njariñ du lu yéeme yàlla moo fay wax boppam di fa melal boppam di wane ne kenn la di wane ne jurul te kenn juru ko kon yàlla mu ngi wax doomu aadama bi ne bum ko bokkaale ak kenn yàlla mën na jéggal doomu aadama bi bépp bàkkaar bu mu def ba mu des bokkaale bu ko tuubul ba jóge fi yàlla du ko jéggale yàlla na nu yàlla musal ci bokkaale dafa bokk nag ci njariñu saar woowu ñu naan qul huwallahu ahad nit ki heure bu jullee fajar ba pare mu tari ko fukki yoon ak benn maanaam onze fois su ko defee nee na nu bis boobu dey buur bi subhaanahu wa du ko ci bindal bàkkaar moom qul huwallahu ahad fukki yoon ak benn ginnaaw fajar niki noonu qul huwallahu ahad su fekkee ne nit ki mi ngi koy tari doonte le benn yoon la ginnaaw julli farata gone su jullee suba mu tari ko benn yoon tisbaar tàkkusaan timis gee bu ci nekk mu tari ko benn yoon ñu ni kooku dey yàlla dana ko tabaxal kër ca àjjana te xam ngeen ne buur bi subhaanahu wataala taala su lay tabaxal kër ca àjjana dafay fekk ne yow àjjana nga war a dugg kon lanu bëgg a wax mooy ku koy faral di def yàlla dana la tàbbal àjjana yàlla na nu yàlla jéggal suñuy bàkkaar jéggal ko mboolem jullit nag yàlla na nu yàlla tàbbal aljanal firdaws sunu way dawlu yi yàlla na leen yàlla jéggal képp koo xamante ne xam nga ku génn àdduna muy sa waajur ak ku mënti doon na ko yàlla jéggal ca fa mu nekk nin koy faral di waxee ci képp ku fi génn na yàlla yaatal bàmmeelam na ko yàlla musal ci fitnaal bàmmeel na ko yàlla yërëm na ko yàlla jéggal na ko yàlla tàbbal aljana yi firdaws kon mbokk yi mu doonoon seen jataay ñaan ak Tektal TV di nuyu bu baaxa baax sunu mbokk Cheikh Diop Taalif di ko ñaanal yàlla fan wu gudd ak wér gu yaram ma leen di jox daje ci beneen jataay wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.